waral téway bi moy li nga xamné ne moo fi xew journée mardi le 3 ci goudi bu couvre-feu bi commencé euh, xale yu ndaw dañoo génn di manifester wu arrêté bi nga xamné le président Macky Sall et son gouvernement ñoko joxe mi couvre-feu bi ñu du ko xale yu génn ay xalé yu ndaw yu génn di manifester wu pour ñu arrêter couvre-feu bi soo seetee nag loolu nga xam ne am na lu ko waral ay xale génn mais ay mag ñoo leen yabal te loolu lu waral yépp la ñu di def lu ñaaw loolu jigéen ñu ànd ak président de la république son excellence Macky Sall jóg du ko ñaawlu nekk ci Mariama Sarr jog du ko ñaawlu di ñaaw li defin bu ñaaw bu ñu def nga xam ne loolu rafetut lu ñaaw la di liggéeyal président topp si ginnaaw ak euh, Mariama saar ñoo toog nii tey muy président yi président yi rek a ñëw parce que lu ko waral pandémie mi kenn àndut ak kenn bu du mobilisation di dara ñu fi nekk si salle bi yëpp ay président lañ ñoo ñëw taxaw ni tey di ñaaw lu ñaaw loolu xale yi def nit ñi nag dañ ko doon jóg du ko def ngir wan kawlax wan nit ñi ni leen Mariama Sarr Kaolack kontaanuñu ci moom ñuy sant yàlla na ndax mbir mi bu mu amee chef religieux yi dañuy oote ñu fi nekk ñëpp dañ doon ñun ñi dañu doon oo téléphone naan dañ koy ñaawlu doo oo Mariama Sarr di ko ñaawlu du commerçant yi di ko ñaawlu autorité dëkk bi di ko ñaawlu ñëpp di ko ñaawlu chef religieux yi nekk Kaolack yëpp ak lu ko wër dañoo oote di ñaawlu mbir mi kon donc dañoo sant yàlla ñun ñi nga xam ne ñooy liggéeyal président derrière Mariama Sarr parce que la foogoon ba tax ñu def loolu loolu amut ñu koy sante yàlla ndax tey dañoo xam ne nag sant yàlla jot na parce que bañ ko defee lañ sa foog amu si nit ñi du nit ñu nit ñu jóg di ko naqarlu kon Mariama saar tey sant nañ yàlla ba nit ñi ba kaw Kaolack wanee ni Mariama Sarr mu ngi leen di jàppale mu ngi ànd ak ñoom di liggéey mi ngi defar Kaolack kon ñoo ngi koy sante yàlla na population bi ñoo wane loolu may wax ni nag lii ñu ko def def nañ lu ñaaw def nañ loo xam ne rafetut parce que xam nga ne xale bu am 12 ans 13 ans kooku heure boobu da ko waroon a fekk muy nelaw waaye xale bu jóg di génn ay mag ja ruuxuloo si biir di leen yónni loolu lu ñaaw la te politique a taxoon ñu jël ko waaye lañ defe woon amut nit ñi si ñoo ngi ci ginnaaw président di ko depuis lors, depuis que la est l'APR te foo nekkoon teggeeguñ fi seen tànk nekk ci ginnaaw Mariama Sarr tey nekk fa ëllëg. Il y a d'autres leaders qui sont là pourtant il y a le gouverneur qui représente le président de la République dans la région il y a le préfet et on vous avez vu les jeunes n'ont pas saccagé ces lieux-là donc pourquoi indexer la maison de Madame le maire on s'est dit alors qu'il y a de la politique. Peut-être ces jeunes-là sont influencés par d'autres personnes. Parce que moi, je ne vois pas pourquoi ils ont indexé uniquement la maison de Madame le maire. Et on a vu tout ce que Madame le maire est en train de faire à Kaolack. Tout le monde le sait. Depuis que la pandémie a commencé, on a vu ce que Madame le maire a fait. est elle est sortie. Elle a posé des actes que tout le monde a vus aider la population, remis des dons à monsieur le gouverneur, aux talibés, aux maisons, euh, les maisons religieuses. Elle est là, près de sa population. Elle n'est même pas restée à Dakar. Et je vois que, même si ces jeunes-là ont fait ces actes-là, il faut savoir que la population de Kaolack n'est pas d'accord avec ces actes.